بسم الإلهي كبر كب سيخ فدلمي بور يلا دولينو أي مقام يلاو بسم الإلهي كبر كب سيخ فدلمي بور يلا دولينو أي مقام يلاو بسم الإلهي كبر كب سيخ فدلمي بور يلا دولينو ay maqam ya law o qalbuka wala sadati may bagaway tayji ma way fi sangu gor ñep ya law ko ka di sheikh fallu ko ka mag mo ray mbir ya law ko ka di kooka mag moo rëy mbir moo gën ñu njëkk ñëpp gën ñi ñëpp yàllaawoo ku mel ni ma musu fi am mukk dootu fi am te dootu am fii ci duniyaa wóor na yàllaawoo asalaamaaleykum mbokki internaute Allo Dakar TV tey dañ leen ñëwaloon fii ci Yoff Jàmmalaay seet si un grand maître tailleur ñu di ko wax Mara Diouf waaw Mara Diouf ju sant bi na xaw a doy waar lool nag ci ko ci juufeen bu nekk ci weeru koor <laughs> Mara ñu ngi lay ziar bu baax. jërëjëf yàlla nañu yàlla boole yoonu ziar yoo xam auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mm-hmm. ngi leen di waaw ñu seet woon la tey nag ci veyu korité bi mm-hmm. eh, bëggoon a xam tey eh, yan tissu ñoo gën a dox. actuellement ci wàllu yi ñuy ñawlu ci korité ji. Mm-hmm. booy seet jëzneer bi mhm. ci la gars yi ëpp lu ñuy dox wala mooy beebaa bi ñuy wax super mag ñoom mhm. hmm? aussi que super 100 yi mu ngi dox hmm? euh, super sans fil à fil aussi euh, tissu bu ndox la mhm. bon aussi que am na ay lin des tissus coton yoo xamante ne vraiment dox na ci dund gi aussi mais ku fi ñëw rek mën nañu ci wan yoo xamante ne mën nga ci gis sa bopp. macha allah côté commande bi tam mi ngi dox. macha allah côté commande mhm. mais tey tam ci wàllu création yan modèle nga taxaw nga nga nga créé ne ko proposé client yi. waaw man nag samay création mën naa wax ni sant yàlla parce que bon du ma tailleur bu ndaw aussi tailleur laa boo xamante nii mën naa wax ni ci tailleur yi gën a mag ci Sénégal ñi ci bokkoon cay jamono ñooma jàngal métier mhm. euh, yàgg naa ci métier bi yàgg naa di créer bëri na lu ñuy créer tey loo xamante ni euh, maaraam moo ko génne woon ci ay jamono. lu ci mel ni lan par exemple. lu ci mel ni booy seet Macky Sall bii ñuy wax nii. Mmh. bi ma koy créer presque c'était en soixante ma mmh. defar Macky Sall Seexu Sagari bi ma koy ñëw kenn ñëw. Mmh. Ah. des modèles yoo xamante ni ba léegi sax dafa xaw a làqu mais su ma ko ñëwoon day nekk au top. su ko génnewaatoon rek day day day kii. Mm, tegaat ko ci temps day tegaat ko ci temps rek day jàll. Mm-hmm. waaw de sorte que. Mm-hmm. wàllu création moom. moom vraiment sant nañ ci yàlla bu baax. Mm-hmm. waaw ndax euh, tailleur bu mag la xam lu bari ci wàllu ñëw. ndax ñun suñu wàllu ñëw dañu généraliser. amul dañuy mën li bàyyi ne. lépp loo naan lu ñuy ñaw la. Ah, ci kaw suuf. maara ah, ñaw loolu. muy civil bi complet bi. di lu mu mën a doon bëri na tailleur complet boo xam ne day jàng complet ba mën ko mhm. ñëw fii ma defal ko formation muy def broderie mhm. donc bu ko dugalee ci métier par rapport ak li mu mën mhm. day doon affaire bu important pour moom mhm. waaw te kilifa yi dañ koy bàyyi xel mhm. ndax ñaar yi mu jumale lu mu ñawal nit ñu seetaan te day correction bi day jàll ah macha allah métier moom euh, ku ñu ñaan da ngay ñaan mu mokk waaw mais tey boo gisee tey tailleur yi man atelier tailleur ni mu bëree xale boo xam ne dañ koy indi mu nekk apprenti jaar fa six mois ki bëgg a créer atelier tey ban conseil ngay jox ñooñu non ñooñu moom vraiment dama leen di xaw a yërëm quoi. Mhm. en quelque sorte. Mhm. parce que dafa dul dem. Mhm. munoo ñàkk jàng ba pare ni da ngay tari. waaw te aussi loolu xaw na gaañ métier bi. waaw euh, gaañ na aussi jigéen ñi nga xamante ni dañ ciy dugg te xamuñu métier bi. waaw jël xaalis bu bëri investir ko ci jël ay xale mu di leen. def nii de gauche à droite. Mhm. liggéey bi du dem seen alal yàqu ainsi de suite. tamit bon pratiquement nangootuñu jàng métier. dañuy ñëw pour ciment comme ni nga ko waxee mën benn affaire rek voilà. loo koo liggéeyal yàqu liggéeyam. Mhm. donc yooyu daal problème la. ci liggéey bi mhm. waaw problème la ci liggéey bi bon état nag am na ci part de responsabilité. Euh, association yi comme ku mel ni FENAF. E ah ñu ngi ciy liggéey liggéey bu rëy foog état jàpp ci pour que les grands tailleurs grands maîtres yi xale yi former leen jigéen ñi bëgg nañu mais aussi euh, système bi doxul comme il faut. Mhm. waaw donc il faut ñu organiser wu pour mën a gérer loolu. Mhm. am na tam beneen phénomène bu ñu gis ci wàllu ñaw ak wàllu modd. Mhm. mooy maanaam façon yenn modd yu xaw a doy waar yi nga xam ne wax dëgg yàlla demul ci xew demul ci jàkk julliwul. tey ñooñ tam di ko def lan nga am loo leen di wax. waaw li ma leen di wax mooy ñu ba ko mhm. dañ ciy am fulla ak fayda. Mhm. bëri ñoo xamante ni tey jii ci ay bëdët yu nekk fii Sénégal di doon ay jigéen mhm. ñu di leen tudd ci rajo bi te ba tey ñi ngi jëfe yooyu di ko sol su ma tuddoon seen tur tey ñëpp xam leen Sénégal xam leen maa leen faral ba ci ñaw di leen ñawal lu ñu bëgg ma di leen ko ñawal mais maa dem ba xam ni sampul kër du ñaw bu baax du ñaw bu rafet ma teg ko ci suuf ca laa taxalikoog ñoom ba tey. Mhm. maa ngi sant yàlla. Mhm. waaw tey grand maître tailleur nga loolu kenn werante wu ko mais est-ce que di ngay exporter say produits ci sous région beeg yu mel noonu daal. waaw nag man moom xam nga rek euh, Mara daal benn ndongo la boo xamante ni moom mu ngi toog ci place am di mhm. ñëw daal. waaw bu fekkee am na ay clients nag yoo xam ne ñu ngi en extérieur ku nekk partout dans moom monde xam nañu ma. sama ñëw dem na ko koo xalaat ci àdduna. mais nag doonuma koo xamante ni damay jël ay ñëw jël ay valises di importer di yóbbu mara dal amagul jot boobu mhm. waaw mara dal mi ngi tok ci atelier am gaay ñu ngi koy jox ñaw yi limu yor dal mënu ko booleeg nekkat di wër ci ay conteneur rek di joxe mais téw mais téw yang koy bàyyi xel te heure bu lako yalla mën lo nga def ko yalla mën lo ma def ko waaw incha allah euh, Mara djouf yow tamit euh, yag nga ci métier bi mhm. danaka 86 ba légui mhm. danaka mat na ñen fukki at tey euh, wax ñu tuti ci sa jaar-jaar ci ño xam jaar nañ say loxo naka nga jàngee métier bi naka la guubi guubu tailleur duggee ci yow ak euh, loo ci loo xam ne réalisé nga ko ci tey di ko rafetlu. loolu de xanaa mën naa ci wax tuuti rek parce que tailleur yàgg naa ci bon métier la bu ma bëggoon parce que dama opté woon ñaari ñaari ñaari ñaari métier muy tailleur entre tailleur ak menuiserie moment bi may pare suma jàng ci wàllu daara ji. jàng alxuraan ba xaw a sori. ter mm-hmm. ji <laughs> mën a liir téere yu bari. Mm-hmm. Hmm? Mhm. Euh, macha allah di ci sant yàlla moo sama kilifa comme ni kilifa yëpp di defee mhm. gis ni xale bii kat xëy na war na jàngi métier mhm. toll na ci ñu dugal na ci métier boo defee bi ma xoolee gis ni menuiserie yi wala tailleur daal dugg ci ñëw waaw bi ma ci duggee tamit yàlla ubbil ma ci bunt ma tasee kilifa bu mag bu ñu wax Cheikh Ndiaye yàlla ko yàlla yërëm dolli ko ay leer ah, mu jàngal ma métier njàngi leen bu rafet waaw ma jàng fa métier mën ko ni ma ko war a mënee. Mhm. jamono bi may mën ñëw. Mhm. su ma rombaan ci mbedd wala ma dugg au marché. tailleur yi dañuy génn naan booy Cheikh Ndiaye baa ngi ne tellement que. Mhm. dañ ma dañ ma ràññee woon. mën li may def. xam ko voilà. aussi ma tegu ci yoon daal macha allah. da am ñaata at nga dugg ci tailleur. Oh, nga commencé jàng tailleur. Euh, boo xoolee. Euh, boo ko génnee ci boo ci boo ci génnee boo ci génnee yeneen sept ans ca ginnaaw. Mhm. boo calculer loolu lay doon. parce que ah, def naa sept ans d' apprentissage. tànk nga woon. waaw tànk ah, la waaw. waaw mhm, dëgg a jàng métier bi teel ko mën tailleur rek laa xam. Mhm. waaw. est-ce que am na tey ay tailleur yu ñu xam ci réew mi yu ñu ràññee yoo xam ne tey bokk nga ak ñoom jàngandoo métier bi. man bi may bi may beru mën naa wax ni. may beru ba bisuma def ci ay deux ou trois ans. ci la seen Sène Mandel Couture Mandel Couture sama waay la sama xarit la yàlla na ko yàlla yërëm doon ko ay leer nit ku baax wax na ma lu nekk nag maara defal lii defal laa defal la li mhm. demal yóbbu ñëw mais xam nga nit bu tënkoo rek mhm. responsable teela a responsable mhm. xam nga sa jóg day jafe yooyu lu ma arrivé la woon ci ba mais ku mel ni Issa bon moom Issa mënul sax woon ñaw mais gérant la woon boo xamante ni macha allah papaam moom mënoon na ñëw muy amal ba seen waaw mais sinon ñii nga fiy dégg ñëpp samay boy lañ ci ñëw waaw mhm. ah, à part ça ñi ma fi mënoon xam ci ñoo xamante ni ay tailleur complet lañu woon ku ci mel ni Fall Mannequin mhm. ak euh, ñoom Amath Ndiaye consort tamit samay grand yu nekkoon grand yo ci mel ni ay ñoom Moussa Diagne des choses comme ça mhm. mais ñeneen ñi ci des ñëpp moom pratiquement euh, bëri na ñoo xam ni sumay rakk lañ waaw euh, ak ni nga yàggee ci ñëw ak ni nga ko xamee jàpp nga ne sénégalais mën na solo macha allah. Mhm. Sénégal ñoo dàq solo ci monde bi mhm. waaw moom moom wax jooju foo ko teg. non parce ñoom ñoo seen i ñëwkat ñoo dàq ñëw ci monde bi. Mhm. waaw sénégalais xam li muy sol xam li muy soloo. waaw nit ku mënul ñëw sax mën naa ñëw. dugg ci un jàngal ko ni muy ñawee. dëgg la ndaanaan yu mel indi modèle am créé ko ndaanaan yu mel noonu ñu ngi ci réew mi dëgg la waaw mhm. ñaw bi ni mu mel a mel baat bi ni mu war a mel mhm. lii fi mu war a yem nangam sàngam am na ñu ko xam te mosuñoo toog ci machine mhm. tey booy xool suñu réew moo xam ñuy politique la moo xam tey porte de voix nit yu siw yu ñu xam tey kan nga jàpp ko xam ne wax dëgg yàlla kii day sol te mën na sol waaw ah. ba ci président de la république nag waaw kooku nag mooy la ndëmbawoon ah wax dëgg yàlla ki koy ñëwal mën na ñew te limuy koy solal japp nako ko waaw ku ci mel ni suñu ministre aussi dina de la mun nañ mun na solo waaw bari na nak du jeex waaw ndax ndaanaan ni bari nañ fi bo man nak pratiquement ñi ma ëpp limay ñewal moy mooy kilifa diine yi waaw kilifa diine yi ñi ci ëpp ci lay ñom lay ñom lay bari lu ma leen di ñewal waaw ku melni Abdou Gazan Mbacké doomu Serigne Mourtala bi ñuy wax Aziz Bamba sama Mm-hmm. danaa ko ñawal lu bari mm-hmm. ku ne xam na ni daanaan la mm-hmm. waaw tey jii Mbacke Mbacke jeune Mbacke Mbacke boo fii gis muy solo boo royul ci Abdou Aziz Gazane moom ci wàllu solo des na waaw moom xamul ni muy solo te mënoon na ko macha allah yal na ko yàlla dolli ay leer moom dajale ko maamam waaw suñu xarit la photo ma ngi noonu waaw euh, yan kilifa diine nga gën a nga gën a nga gën di ngay gën di ñawal tey euh, bu dee am na ñu ci mën a xam. xam nga nag euh, kilifa diine moom. Hmm. di leen tudd ci kii man dama ko dul xaw a rafetlu trop. Hmm, hmm, ne daal kilifa goo fi xalaat rek. jàppal ni Mara ñawal na ko incha allah. jërëjëf mbokk allo Dakar TV tey lii lañ leen indiloon euh, grand maître tailleur Mara Diouf lañu ñu seet si woon fii ci Yoff Jàmmalaay ñu leen dig daje.